ak ay durub yi nga xamantene ne durub muntija ak durub aqima léegi dafa dem ci shaklu thani shaklu thani moy li nga xamantene mahmul mi dafa wara nek ci sura bi ak kubra wasat bi dafa war nek mahmul ci sura bi nek mahmul ci kubra bi loolu moy ay chaklu thani léegi amoon na chart chartam lan la ñaari chart la am benn xasabul kayf bii des hasab al kam chart bu njëkk bi wa thani an yaxtalifa fi lkayfi maa كلية الكبرى له شرط وقع نانا والثاني الشكل الثاني أن يختلف شرطا أن يختلف من يوجد في الكيف في كيف بيبونك موجب بين نيك سالب بيبونك سالب بينك موجب لولو بين شرط له فوق ñu wuute ci kayf bi nekkee muuja bi nekk saaliba ndax suñu bokkee nekk ñaari muuja wala ñu nekk ñaari saaliba du mën a jur dara ndax yenn saay bu ñu dëppoo nekk muuja wala ñu dëppoo nekk saaliba mën nañoo àndandoo nekk dëgg mën naa ñëw nekk dëgg wala mu nekk kaadiba ittiraab boobu am ci natiija bi nag moo tax ñu nekkoon darba aqim la ndax ñoom seen mbir waxoon nañ leen ne loo xam mundabit la ñuy jàpp ñoom loo xam day takku côté boo ko xool mu nekk mu tarit ndax nee na natiija yi génn fii da bëgg a wax ni asxar be akbar bi ñoom ñaar duñu laale kese loolu da nga bëgg a wax comme ñoom ñaar duñu laale nag foog ixtilaafu kay am foog bu kii nekkee muuja ba kii nekk saaliba ndax ixtilaaf bi mën a am tanaqud mën a am ci diggante asxar mi ak akbar mi masalan soo jëloon ñaar yoo xam ne ñaari xokk mutasaay waxoon na ñaari mutasaay mooy ñaari mbir yoo xam mën nañoo dëppoo ci benn masduq masalan insaan ak naat ak masalan soo ne woon kul insaani xayawaan daal ne waat kullu naatiqin xayawaan foofu dëppoo nañ ci ñoom ñaar ñëpp nekk muujam kul insaan xayawaan kullu naatiqin xayawaan boo xool xayawaan maxmul la ci suqraa bi di maxmul ci kuraa bi lii mooy shaklu saani léegi boo xool suqraa bi muujaba la kuraa bi kadaalika muujaba te loolu lay bañ bu ñuy xool natiija bi dañuy jox kullu insaan naatiq loolu dëgg la legi jël ko ci mutabayin nga xol ñaar yo xam mutabayin lañ nga xol bo jëlon tay suxraa bi nga bolé ko benen kubra nga ne kul insan hayawan wa kul farasin hayawan kul insan hayawan kul farasin hayawan natija bi lay nek kul insan faras lol kadiba la kon ittirab bi am ci buñu ittifaqé ci mujab wala saliba motax ñu ne kon foog ixtilaafil kay fi am ndax tabayun mëna am ci akbar bi ak asghar ndax buñu ñu xool nat su njëkk bi soo ijaabee am dëgg boo naf yoo am am mu nekk kaadiba fu ñaareel fi nag moom salbu mu mën a nekk sadiqa mooy misaal bi mu mujjee joxe sànq misaal bi mu mujjee joxe sànq mooy kul insaanin xayawaan wa kul farasin xayawaan foofu salbu rek moo fa mën a nekk dëgg te mooy laa chee insaan bi farasin itraabu natija bi foofu moo tax ñu ne kon nag foog suxraa bi ak kubra bi ñu ixtilaaf fil kayf bu ko defee tanaaqud mën a amee maanaam tabaayun mën a amee ci diggante akbar bi mi nga xamanteni moy génne ci kubra ma ak asghar mi nga xam moy génne ci sughra bi ma maa al kubra neena na charte tamit charte bu ñëk mooy ikhtilaf kayf bu ki nekké mujj nekké ne kee nekk saalib bu ki nekké salib nekké kee nekk mujj ba charte bi ñu wax ni ci hasab hasabul kam lay xol moy mooy al kubra fok kubra bi nekk kulliya motax mu ne maa kulliyatul kubra ànd ak kulliyatul kubra kooku chartun charte la waqaa tabbina lahu ñeel achaklu athaani ndax suxraa bi ndax kubra bi su fekkoon dafa ñëw nekk juziya kon dañ naan kat dagan na mu nekk mu bàyyin dagan na nekk tabayun ci diggante asxar mi ak baadu afraadil akbar te loolu du du du du jur eh, tabayun boo xamante ni xaqiqa la su suxraa su fekkoon kubra bi dafa nekk juziya dafa mel da ngaa wax ni lenn ci ay afraadam maanaam lenn ci afraad asxar bi ak akbar bi lenn ci afraad asxar moo am tabaayun waaye du léppam kooku tabaayun xaqiqi matalan soo jógaloon tey nga ne gis nañ bi nekk kulliya moo jóg nga ci kubra bi def ko juzu ni baadul xayawaani laysa bi insaanin بعض الحيوان ليس بإنسان بو خول فوف سال بو نيونا واي دا فا نيك جوز موتا بو ني خول دنان لا كون ناطق دا فاي داف تنافي اك لين تي بعض الافراد اكبر ندخ بو خول مثال ما جوخ لي كل ناطق انسان وبعض الحيوان ليس بإنسان بوي خول نياري مقدمة يوي صغرى بي كبرى بي صغرى بي كل كل ناطق إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان ناطق بني خول موي أصغر مي ده أصغر تزور تي صغرى بي لجنة لول دفا داقون تيك لين تي أفراد الأكبر بني أكبر موي حيوان بقول نتيجة بني كاذبة ده دي جورل بعض الناطق ليس بحيوان لول كاذبة لا كون نك بو نياري شارتي داجي تما اختلاف الكيف اك كليه كبرى تي لا نتيجه مانا ген ndax tabayun fi lawazimi kooku yastalzimu tabayun fi lmalzumaati ay laazim bu ñu amee tabayun seen malzum day nekk tabayun masalan boo ne woon kul insaani xayawaan wala cheya min alxajari bi xayawaani booy xool kon da nga gis ni misaal bi ma tuddee kul insaani xayawaan wala cheya min alxajari bi xayawaani ku ne xam na ni xayawaan ku ne xam na ni xayawaan laazim la ci انسان طبعا ندخ محمول تزول لازم لينك في موضوع اما كبرى منك لا شيء من الحجر بحيوان دغا بغا وخني لازم الحجر مو نقيض نيار نيل نيب مو نقيض حيوان مو نقيض انسان كن نقيض حيوان النقيض انسان مو مو لازم نيار نيل كن نك فوك لو سفانو ak xajar boo ko saxalee ñeel insaan wala xayawaan mën a nekk dëgg kon nag li nga xamante ni xajar kon ak insaan ak xayawaan duñu mën a laale abadan ndax insaan ak xajar bu ñu dajale woon day mel ni danga bëgg a wax ni xayawaan ak laa xayawaan mën nañoo daje ndax loolu nga wax kon nag loolu lu ñu dégg mooy wane ni nati yëpp mënta am lu dul تنافي دفع أم تيدين أصغر بمع سائر أفراد الأكبر موتا كلية كبرى كبرى بنك كلية سائر أفراد دينك دينك دينك متباين أك أصغر مثلا مثال مي بأخبوني من كل ناطق إنسان ولا شيء من الفرس بإنسان كل ناطق إنسان ولا شيء من الفرس بإنسان دلائجه لا شيء من الناطق بفرس لول ما نتيجة بيور waxoon naa ci ginnaaw ni wa tatbau natijatul axs dana ko jàngale ci kanam toujours comme maadaama am na salbu salbu lay la natija bi ñëw ku ci am salbu rek natija buy ñëw day nekk saaliba ku ci am juzu tamit natija buy nekk day nekk juziya ba mu des chaklu saalis dana ñëw ci kanam moom moom toujours juzu lay indi moom nee na kullun wala shay'a wala shay'a fa kullun intaajuha min thani al ashkaali qubil léegi ashkaal yi léegi maanaam darb yi nga xam mooy durub muntija lay génne nee na kullun wala shay'a soo booree kulliya mujaba ak kulliya saaliba da nga am natija foofu kooku mooy darbu awal da nga naan kullu jirmin xaadis wala shay'a min algani an alfaili bi xaadisin booy xool xaadis moo takraar foofu te maxmula ci ñaar ñëpp natija bi lu muy jur day jur laa shay'a min al jirmi بغنين عن الفاعل kooku mooy kullun wala shay a la jur soo demee ci bu ñaari wala shay a fa kullun mooy aksile rek léegi da nga jiital kulliya saaliba nekk suxra kulliya mujaba nekk kubra mooy aksi li njëkk a jàng li njëkk a jàng kullun wala shay a suxra bi dafa nekk kulliya mujaba kubra bi nekk kulliya saaliba darbu saani nag mooy aksam مثلا تنقول مثال دعنا لا شيء من الجائز بغني عن الفاعل لب لو خمدني جائز الح... جائز الحدوث دعنا سخل فاعل منو نك كل دف غني وكل قديم غني عن الفاعل كوك دوي جور لا شيء من الجائز بقديم طبعا موتاخ مون فكل انتاجها من ثاني الاشكال قبل نقصنا نياري كل ولا شيء ولا شيء فكل انتاجها غيرت لي من ثاني الاشكال قبل نقصنا بعض ولا شيء su fekkee suxraa bi هناك nekk jusier mujaba kuraa bi nekk kulie salib la bad wala chey xool na ginaa bu ñu waxee bad mooy jusier mujaba ولا شيء موي كولي سالب بو نخه كلنا موي كولي موجب ولا شيء بو نخه موي كولي سالب بعض ولا شيء جزئ موجب اكل يا سالب سولا بولا دا ام نتيجه بخم جزئ سالب لا بعض ولا شيء مثالا مثلا غني يعني بعض الموجود قديم ولا شيء من الجائز بقديم لول لي جور ليس بعض الموجود بجائز جزئ سالب طبعا موي نتيجه نتيجه بعد ولا شيء وكل كل موجبة قبل هبوب نيك نكو بعض وهم منتف اجي داقول بليس بليس تي ليس موي جزء سالب كون ايضا متى له ديكو نيال مومي كذلك معنام سو بولي جزء سالبة ak kulliye mujaba ba tey natijaam day ñëw nekk juse saaliba rek kooku mooy darbu raabi in nañ taalis loolu misaalam soo nee tey kul boo nee laysa baadu sifaati bi mumkinin wa kullu xaadisin mumkin kooku natiijaam day ليس بعض الصفات صفات بحادث bi xaadisin الرابع لا شيء في إنتاج الأولين وليس في إنتاج الآخرين نقول مو خلاصة اللي مبقى واحد معناه ضرب أول ضرب الثاني سن النتيجة جزء كل سالب لنك ضرب الثالث الرابع سن النتيجة ليس بعض الأجر لا شيء في إنتاج الأولين maanaam kulee saaliba mooy natija ñaari njëkk yi mooy darbu wala darbu saani seen natija dana kulee saaliba walaysa nag laysa baadu fi intaaj l axarina maanaam ñaari mujj yi te mooy darbu saani darbu saalis ak raabi seen natija jusiya saaliba la nekk léegi nag mu dem ci li ñuy wax ruruud yi ruruud yi mooy chakl awal waxoon na moo ci gën a ëpp doole léegi nag chakl yi am na ci ci ci seen biir chaklu saani saalis wa raabi bu ci nekk seen seeni durub mënees na ko radd ci chaklu awal pour mu am doole am na nag yu mënul yoo xamante ni mënta radd yi ci mën a radd la la jàngale fi mu jàngale fi ñaar mu ne in yubna min kulliyatayn in yubna thaani in yubna min kulliyatayn thaani مع سلب كبراه لدى البيان فرده لأول بعكسها في رد لانعكاسها كنفسها لم بغا واخ موي دا بغا واخ ان يبنى بو فكه دانيو تغ الثاني الشكل الثاني من كليتين تنياري كلية مع سلب كبراه عندك سلب كبراه كوكما ضرب أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن